dina maa ngi leen di jaale ku jikkoom ja fàddu na ko jaal waa Sénégal julit yi ci mboole seen rawatina ak waaye ki jël si doomi Abdullahi dellu si jël xaadim rasulullahi jëlaat xalifatul xadimi Mustafa ak Seydi Fallu Mbàkke bàyyi Mustafa asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu baax baax ñëw ci màggalu yi nga xam ne Ndeye Ndiaye mi nga xam ne sunu jigéen la suñu jabar la itam di lépp ki nun di suñu mbokku taalibe di at mu nekk bu ko ah, bu bu màggal gi ñëwee mu organiser ko fii ci këram woo ay dëkkandoom ak ay soppeem ak ay xaytam yëpp ñu bokk yendu fi mu def ay teraanga ah ñu di ko sant bu baax ci liggéey bi mu liggéeyal sëñ Abdou ndax xam na li ko ci boole te mu ngi koy téye ba nëgëni ñu it naan ci mbégte bu baax a baax a baax. ndax ku la woo ci kaay ñu liggéey si Abdou Lahad ah loolu war nga koo gërëm war nga koo sant itam loolu moom fi dajale dañuy fi ak mboole mbokk mbokkam yi xaritam yi ak dëkkandoom yi nga xamante ni année bu nekk ñoo fi bokk daje ñoo fi bokk yendu itam ñuy sant yàlla bu baax di ko gërëm ci taxaw yi ak taptoo yi nga tubaarkàlla tey ku fi yendu lu nekk fekk na fa nga ne loolu lépp pas-pasam la koy defee néew néew mën na ne jigéen laa dem ci kër si Abdou Lahad see génn kër mu dugg fa ca waañee di toog ak a yekk koy liggéey waaye dafa xam ne nag lu gën a ko fii ci këram woo ay mbokkam ak i dëkkandoom ak i xaritam ñu bokk yendoog moom lool ñu koy rafet lu baax di ko ci ñaanal ah, sëñ Sidi mi nga xam ne moom la koy defal yàlla gën ko fee yàggal gën ko may wér ak njabootam yëpp waaye moom it yàlla gën ko fee a ah, ak xaritam yi fi nekkal yàlla nañ fi teewaat na gën déwén ay at yu bari ñu teew ko fi te at mu nekk gën a neex ci ñun ñu ñëwaat tey jii ci màggal gi nga xam ne nii lañ ko baaxoo def muy màggalu sëñ Abdou Lahad ñu ñëw fii ci kër soxna Ndeye Ndiaye Abo ñépp xam suñ diggante ak moom muy sama xarit di sama mag di sama lépp sama digganteek moom egg fa sori dem ba digganteek njaboot ak njaboot dugg ci sama njaboot ak njabootam di benn maag moom ñuy benn kon màggal gi ku fi ñëw maa la war a dala ndax sama kër ngeen ma fekk waaye ñuy sant bu baax Baye Maguette Jaxate ndax nag euh, saa bu ñu yuuxoo rek mu wàlluñu saa bu ñu sonnee gis ko buñ jàqee gis ko bu ñu amee lu ñu neex gis ko bu ñu amee lu ñu naqari gis ko di sant mboole ñi fi ñëw di ñaan Ndeye Ndiaye màggal gi mu di ko def ay at yu bari ci barke Serigne Touba rabbi bi ma yasrahul ashana xad fajaa bi jaahi afdali man lillahi xad la jaa ñoo ngi fii ci Touba marché Mame Binta bu ngeen gisee jataay bi nag ngeen xam ne bis ba moo ñëwati ñu nekk ci ànd kook moom muy bisub Cheikh Abdoulaye Lahat bi nga xam ne euh, mooy turandoom bi saa yu jotee ñoom njaboot yëpp ànd di dundal bis bi ñii ngeen gis ñëpp ay ganam lay ñoo xam ne dañoo ñëw ngir teewle si ko ci bis bi su ko defee bëgg nañu lancer ab message rek boo xam ne dinañ ko jàllale ci bokk taalibe yi ñu nga xam ne yàlla dogal na ñu bëggoon a ñëw te ñëwunu ak ñi nga xam ne ñu ngi fi teewit ngir liggéey bi mën a leer ci seen bopp mu mel ni ku ne màggal Cheikh Abdoulaye Lahat ne alxuraan ku ne màggal Cheikh Abdoulaye Lahat ne xasaayit eh, mu mel ni jàng nañ fi ay limi kaamil yu am solo waaye loola du njombe ci bisub Cheikh Abdoulaye Lahat ndax Cheikh Abdoulaye Lahat buñ ne jukkoom dañ naan kaana xuluqul quraan kon eh, ñu jox Cheikh Mouhamadou Lamine Kane mu wax ñu limi kaamil nu mu toll su ko defee tamit daañu jox euh, sëriñ bi géey xam naa sant we doy waar moom it euh, lu mu am ci kàddu rek mu tàbbal ko. di dellusiwaat ci bis bi nga xamante ni yàgg nañ koo def di sant te yàlla bu baax bañ yàlla maye fekkee gi comme nañ ko daan defee ñi defee ko noonu ñi ñu sant yi jëwriñ ji Cheikh Abdoul Ahad mi nga xamante ni nam ci daan taxawee rek noonu lañ ko taxawee ba yëkkati mm, limi lu demee ni jàng nañ ko fi ak xasida ak Alxuraan lépp mu yëkkatoon ko teg ko suñu loxo benn yegg sa bis ba kon noo koy sant bu baax te di ko ñaanal bu baax si mborom dafal ko ndam ci liggéey bii muy liggéey muy itam te mooy Alxuraan karim eh, eh, di wax ci limi yaasin yooyu nga xamante ni jàng nañ ci lim bu takko takko ndax lu muy gàtt gàtt jàng nañ ci ñaar téeméeri yaasin ak ñeent fukk ak juróom benn xul eh, huwa yi muy lixlaas yi jàng nañ si junne xul huwallaahu nga xamante ni loola daanaka loolu rek dafa doyoon ak fi daaw eh, li muy xasida yi astaghfirullah salaatu ala nabi yëpp benn bu nekk jàng nañ ci lim bu takk takk alquran karim ji jàng nañ ci lim bu takk takk takk takk nga xam ne ni lu njëkk bis bi lañ ko commencé beeg ci bis bi ñu ànd ko ci suba gi ba ci ngoon gi kon noo ñaan bu baax lépp luñ ci jàng rek suñu borom jot la yoon bi si Abdoul Ahad mi ngi ko doon mi ñuy ñaanal ci bis bi barkeb Serigne Touba jàng nañ fi juróom ñeenti juróom-ñeenti kaamel noo ngi nuyu mbokk yëpp te di leen siyaar bu baax. ñu ngi yendu fii si kër sëñ Abdou Lahad Ndiaye muy def bisub sëriñam bisub turandoom di ko def ni ko sëñ Abdou Lahad Mbacke woon muy alxuraan sëñ Abdou Lahad nag bokk si njabootu Serigne Touba sëñ bi nag am cër ko si féetale sëñ Abdou Lahad Mbacke tamit cër gi ko sëñ bi féetale mu tudd sëñ Abdou Lahad Mbacke ba noppi. am diine lool am lislaam lool sëñ Abdou Lahad Mbacke ndax sëñ Tuubaa mi waajuram wax ne am naa si moom yaakaar bi mu ganee jamono sëñ Tuubaa wax loolu ñaareel ba mu waxaat ni Abdou Lahad képp ku mën aw turam doo dem sawara loola sëñ Tuubaa ku ko xës wax loola jar rafet njot rawatina nag sëñ si boppam nekk gi mu nekk sayir lépp ba lim nekk mag ba ni mu suñu borom mooy mu génn àdduna léppam lislaam léppam diine la boole kooku lépp loo xam ne dëkkam bii di dëkkub Serigne Touba moom sëñ lépp luy diine la fi laan santaane moom la jëf moom la fi wax ba daan wax ne man Abdou Lahad mii diine rek moom ma ñor dem ba mujj sax muy bëgg ne lépp loo xam ne ñu ngi koy def méngoowut ak diine nan la génne dëkk bi loo sëñ Lahad Mbacke da jaayante woon a yàlla fu si saa wëkkil du ko dox. Seexul Xadim waajur wa waxan ci moom daa fes ci moom ndax bam nga nee jamono rek la sëñ Touba jëkk a wax xitaab bam jëkk a wax. dani moona moom day dara jab yonent yàlla Isaa la feeñewaale jamono te booba sexagul weenu waajuram bu jigéen teg ca yebal Serigne Mouhamadul Amin Diop Dagana digal ko mu jàng xasida gi nga xam ne moom la tënke kulli wasar bi bihi muy ko jàng ko te ëf ko ko mu jàng ko ëf ko ko lii Serigne ma wax ni Serigne bi ni am naa ci moom yaakaar kenn ku nekk xam na itam ni ah, mbokki mbàkke yi bu gan masa feeñ fi ñoom am na lu ñu koy waajal lu mel ni sarang di ko berndeele keroog sëriñ bi dañu ngir sëñ baar wuute gi mu wuuteeg ñëpp dafa tax mu ni ah, na lépp ceeb nga xam ni li ndaa def di jaxase ceeb ak pepp lépp keroog sëriñ Touba dafa wax ni bernde gi lépp na nekk ceeb ngir wane ni gan gi wuute naa gan yëpp. salaamaaleykum wa rahmatulah sa di wax ci kàddu Ndeye njaay sunu dixième président responsable des femmes. son cinq doon sunu président ci laat ka te jiitalul kenn dinu fakkatal muy sant nag ginnaaw moom sante Cheikh Abdoulaye Mbacke di ñaan yàlla na yàlla yokk leeram muy sant nag sëriñ si di magam di xaritam di wëllëreem di léppam bu ca jógee sant Cheikh Abdoulaye Ka monsieur le maire nee na moom moo ko tee paralysé jàpp na ko di sant borom këram sëriñ Abo mu baax lool bëgg ko ba muy tuuti mu téye ko tëleel ko jàppe ko jëkk koy Cheikh Abdou Lahad Mbacké la ko téye ndax Cheikh Abdou Lahad da ko ne sama dooma mu téye ko doom di sant gorom yi ci kër gi nag di sant doomam yi mu jural boppam ndax tawuñu ko yem nañ ci ay loxoom lu mu leen digal lay def lu mu leen tere lay bàyyi ngërëm nag tereerukaay bay tam mu door sant nag bokki boppam yii di sant nag ah Baye Maguette Diakhaté teew na fi madame mbay teew na fi Ami Mbàkke Bofti teew na fi soxna Daba Mbàkke teew na fi soxna maam Faati mu sëñ maam Asta Mbàkke mu sëñ Moodu Xabbaan teew na fi teraanga bu ne andi na ko soxna Faat Juuf Làmbaay teew na fi soxna Ami Ami ah soxna Ami Jóob kooku dañuy taxaw ci moom tuuti ndax daa jur dooma boole jox nu ko nun ñëpp xam ne noo bokk ak moom saaxewar Fatma bokk ak moom Lat Joor Ngoone Latir di sant nag maam bu sa Jóob moom itam teew na fi di sant nag maam Coro Diouf maam Coro teew ajaratu maam Coro Diouf teew na fi moom daal ku lim doom personnalité yëpp ca suba ba léegi teew nan fi kenn manqué wu di baagante munu cee fay kenn waaw nee na tàllal na leen loxo ndax bokk ngeen ak moom sant gi muy cantal boppam waaw di sant ak kenn bëggul maam kenn bëggul Guèye soxna kenn soxna Guèye mu sëñ Basir Guèye war koñ mi ngi koy sant bu baax di doomam di xaritam di jabaramit it nag ndax mooy mbokkum bi tax moom daal sant na ñëpp gërëm na ñëpp bo sant nag politiciens yi fi ñëw yëpp mënee su koo lim ku lim juum mbaa doo matal mboolem kuy autorité te subaak léegi ñëw nga fi saafonteeg nday njaay ëboo waaye nag moo yaatu ginnaaw nday jaay ëboo dañ koy fay waaye lebalu lebalu kenn lebalu ko nun dañuy jéem te mënunu noo ngi ñaan nag li muy jeex ci kër Seex Abdu Lahad Mbàkke di ko jeex ci kër sëñ aboo gii yal ko for yal na yegg ni yoon yàlla bu ko pëkk fil lépp lu mu song yal na ko daan lu ko nara a song na daan nun nag noo ngi ci ginnaawam tey noo ngi ci ginnaaw ëllëg du nu daw du nu daay du nu dellu ginnaaw maa ngi ñii ñëpp ndax nun saaxe ware sunu maam ñi ci des meena ma ñëw di waa kër Cheikh Aliou Diouf Lambaay di néegum ndayam te kenn du ci dellu ginnaaw ndax bu doon góor bu nu gisut ay dooma mën nañoo jébbalu ci moom mii kon ay yumpaañam ñëpp a ngi koy sant di ko gërëm nday njaay daal noo ngi ñaan yal na nga fi yàgg te wér fanu yontu yàlla nooyun wa daal yal na la dal ku la xaar yal na ku la yéene lu bon yal ko yàlla këpp ci àllam nu nag ku la foo pikiroo rek ñaan fay doom te dun daw dun daay lépp bàyyi ëboo la lii may yëngoon lépp bàyyi ëboo la ndax su ma bàyyi ëboo wóoluwutoon yaatal ma du ma mën a yaatal waaw waaye yaatal na ma li terewu ma dara lu ma bëgg rek la bëgg lu ko lu ma naqari na ko lu lu ma neex neex na ko lii nag moom du dara xasida lañ fas yéene doon def ak jàng arxuraan ak bernda ndax loolu la borom santaane tey dañ ko naan baas di ko fanaane waaye sëñ Sidi Abdou Lahad ci boppam moo ni fañ koy dundale na na xasida ya bari lool na alxuraan ja bari lool na bernde la bari lool loolu ci lañ ne ànd ko ak yar ak teggin laan mi boo bale weer ba teroo ba léegi mi ngi ci alxuraan ji alxuraan ji bi mu ci nekkee sëñ Sidi barki de mu dani ma nee laan njaay na jàngal maam alxuraan ju sell te yéene ko ko sëñ Sidi moo ma ko wax mu ne ma neel Abdoulaye Ndiaye na jàngal maamam alxuraan ju sell te yéene ko te foofa su foofa nag mooy fii soxlawuma fa benn puukarew loolu ba tey moom laay bañ nii defuma fi daray puukarew lépp rek ci liñ ma sant laay def la ne kër sëñ bi laa def bernde toog saafoonteeg samay nit waaw loolu laa def